waaw dama dama dama baal ma wàcc verre rek. waaw da koy wàccee moom lay wàccee. bësël euh, bësël euh, euh, ñu ñu a jël. voilà. laaj su ma ñëw côté bi man ma demee côté bi aja Mor aja ca loxo wa Mor aja bu gaaw waaw. Euh, a ñu ngi leen di siyaare bu baax. Euh, Massawu ci weeru koor bi euh, ngeen nekk toujours ba tey ci li nga rek moom mooy campagne électorale yi depuis bi ngeen dugg wax dëgg yàlla kontaan parce que dafa bokk ci raison yi nga xam ne maanaam par la force dañ ko war a gagné que candidat bi nga xam ne moom la moo jiite coalition bi ñu nekk euh, mi ngi dëkk fii rek à vingt kilomètres sax matu ko defe naa ne Njagañaaw suñ kanam ni foofu la dëkk mais fii la doon jànge Mbour gi fi lycée ak yëpp donc ñu fekkee dañoo dafa nekk suñu candidat ni ñu war a gañee yeneen gox yi fii dafay gën a farataw pour ñu gañe ko loolu moo tax euh, ñu ñëw fi tey fekk si fi mettal euh, di ñaan waa Mbour yëpp ñu jàppale ñu te gis nañ dal suñu xel vraiment parce que yaa ngi gisal sa bopp euh, depuis ñu dugg ci dëkk bi ak léegi man damaa defe ne sax nit ñi dañoo wóorut xanaa parce que même heure u ndogo bi nii gis nga ko ñëpp dañoo préféré génn seen kër yi ndogoo ci mbedd mi pour rencontrer loolu nag moom lu dal xel la daal. tey daa mel ni ab hyper caravane la ñu euh, euh, euh, di Abdou Karim Gueye bi loolu aussi tamit lan ak man ak ñi ma àndal ay gan lañ maître Tall moo fi dëkk te booy dugg ci ab dëkk nag dangay jaar ci bunt bi. buntu kii maître Tall ak ñoom docteur Diayité ñoom Lamine Niass ñooñu la ñuy cordonnel ñu fii ngeen ñuy fekk nii ngeen di jaar loolu moo tax bi ñëwee rek ñu topp ci ginnaaw met daal bedd ngeen jaar fa ñu jaar fa fu mu wax ñu taxaw fa loolu la Abdou Karim Gueye tamit xam naa ne yëgoowu ñoon sax bi ñuy ñëw mais xam naa li ko yëkkati moom ma yëkkati muy ñëw def campagne euh, pour mën a soññ nit ñi fàttali nit ñi Euh, seddale bulletin yi pour ñu xàmmee ko Abdou Karim nag bu ñëwee ci coalition bi mën nañoo wax ne lu am solo la parce que dafa am nit ñoo xam ne même bu dul mbooloo mu bëri moo leen mën a waxal wala sax leneen waaye seen jëmm rek lu ñu teew dañuy fekk ay millions et millions sénégalais yoo xam ne danañ leen ñemeloo loolu parce que Abdou Karim euh, ku ko xam-xam ne mënul ñàkk ne mënul nekk ci ay caaxaan daal. te digganteem ak Ousmane Sonko mi ngi bëgg a yàgg te bu fekkoon Sonko nit kuy sensé la wala nit kuy uh, wor defe naa ne seen diggante am na lu yàqu na bu yàgg a yàgg kon donc comme ñi nga ànd ba léegi rek yaakaar naa ne loolu rek doy na sëkk ci nag Sonko ma woon 2016 2017 moo nekkaat nii ba tey malgré que li fi jaar lépp. Euh, waaw Mbour nag xam nga commune bi yëpp dañ ko daan gagné mais euh, euh, dafa am ay dëkk yu nekk fii ci dëkk bi ci ci quartier yoo xam ne dañ koy perte bu xawee bari nag boo ko boo bu ñëwee fekk si résultat commune bi buñ la lay raw du bari nag mais dañ lay raw loolu nag Ousmane Sonko xamoon na ko ba def fi nemmi ko tour te itam jàpp naa ne élection yi moom benn candidat moo am mooy Bassirou Diomaye Faye jàpp naa ne mbuur raafal moo fi am comme fi ñu jot a jaar fépp ñun gis nañ ne raafal dana fi am muy élection yoo xam ne résultat yi bu génnee dana dana xorom torop parce que askan wi moo gis moom pare nañ ñun leader yi kay ñoo pareekul waaye ñoom moom pare nañ bu yàgg parce que au lieu ñoo yaa ni campagne mais ñoom ñoo lay campagne sax waaw euh, loolu am na parce que boo xoolee démb la da jeex pour maanaam recours yeeg yooyu euh, defe naa ne euh, bëgguma ci wax waaye jàpp naa ne daal incha allahu taala ay heures yu néew dinañ gisante ak danañ gis Ousmane Sonko parce que même bu dul ay information sax yu ñuy jël mais ni loi bi tëddee rek maanaam mënatul toog ci kaso bi parce que amatul ko fa mën a téye waaw loolu moom ñun ñëpp ko boo ko xam jàpp naa ne ko xam dara ci droit rek xam nga ne maanaam yaakaar naa Sonko mi ngi heure yu mujj ci biir kaso waa waa ñoom dañoo paniqué rek panique la rek li ñuy wax noonu yëpp du dara gis nga bi ñuy tànn Amadou Ba ñoo ko tayoon tànn ko dofuñu woon kenn sexalu leen lem dañ ko tànnee avec làmmiñ yu rëy boobu jàpp nañ Ousmane Sonko def ko ci prison bi jàpp ne léegi jeex na dañuy gagné dañuy dem élection ndekete yoote maanaam patriotes yi ak sénégalais yi ciment lañ benn yoon lañuy lañuy lañuy la ñuy tooy te ñoom Macky Sall boo ko joxoon kaamin mu waatala na Sonko du bokk donc ñoom jàppoon nañ ne élection yoo xam ne Sonko bokkul bu ele bu jomaa bu ñu amee Benno Bokk Yaakaar bu amee candidat rek jeex na donc loolu la taxoon ñu am confiance mais bi ñu demee. li nekkoon ci Sonko Sonko jël ko yàq ko ci jomaay ñu gis ne loolu jàpp Sonko bi amul sens ci lañ paniqué rek tàmbali naa noo léegi dañuy euh, jote fii jote faa dañoo leer ne Amadou Ba du gagné loolu da leen leer Amadou Ba du gagné loolu ñoom ñoo la ko gën a xam donc xam nañ ne du gagné léegi nag defet bi rek moom la ñuy consommé nii mais Macky Sall ak yëpp bu Amadou Ba naroon a gagné amul kenn ko am fitu opposé wu donc loolu donc la panique la rek. ñoom ñoo tànn Amadou Ba te bañ koy tànn raison yi ñu ko tànne woon ñoom dañoo xamul politique li si des mooy dañoo xamul patriote yi xamuñu Sonko ñoom ko jàpp ne nit bu yàqee ki nga nopp day tax nga nopp ko xam nga ne xamuñu Sénégal hmm? ku fekk nga nopp nit mu ne la mu ne la doo ko fi noppi taxul nga nopp ko waaw léegi nag ñoom dañoo jàppoon ne patriote yi nopp gi ñu bëgg gi ñu bëgg Sonko suñ leen ko xañee rek suñ leen ko xañee rek léegi ñoom dañ leen di bëgg defe naa ne loolu erreur la loolu nag lañ def ñun ñu décider continuer suñu liggéey bañ dem ba paniqué di xuloo seen biir mais loolu lépp tréwul premier tour lañ leen di gagné ñu xuloo ñu juboo ñoo ci yam voilà parce que xam nga ne panique mënut a weesu dem jàppi élection ba date bi ñeeg si nga ne da nga koy fomm amoo loo koy fommee lu dul candidat bi nga yaakaar nga ne gerkat la donc kooku boo paree ban sénégalais moo ñàkk fulla ban sénégalais moo ñàkk fulla ba koy wateel loolu yëpp mi ngi si. waaw loolu nag si loxo méttal la nekk ñun ñu ngi ci ginnaaw méttal Euh, di ko déglu fu ñu wax jaar leen rek ñu jaar fa tey damaa socc sax ba sonn mais ñu ngi ci ginnaawam heure bu ñu paree rek ci man ma tourné delluwaat sama kër waaw jërëjëf. muy bële jël leen seen café ak seen ndox mi muy. ma non non. ana mu ana léegi. voilà euh, ba tey rek ñu ji xool euh, sëñ Mara euh, bu rek ñu. waaw aywa.